mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci yéen ñëpp eh, di ko ñaanal àddina yëpp ak tolluwaay li jamono yi xam ngeen ko eh, rawatina ca eh, diggante Ukraine ak réewum Russie lépp lu ci mën a am nag njeexite yàlla na sunu borom yemale ko fii dakkal ko ci ni mu gën a gaawe tey jii ci pencoo gi ak RFM ñu ngi waxtaane rek tolluwaay sunu réew waaye àddina mm, ci wàllug dundin nekkin jikko ñu ngi ànd ak imaam Mouhamadou Lamine Ka imaam Mouhamadou Lamine Ka mooy président bu union ouléma euh, pour l'éthique et la citoyenneté imaam ñu ngi lay ziar bu baax ka waaleykum salaam wa rahmatullah alaji maa ngi lay nuyu di la ziyaara di la baalu ak tamit di di ñuy waa Sénégal yëpp mm. ñuy suuti ñi nga xam na ay auditeurs lañu ci RFM. jërëjëf euh, ci ci gàttal d' abord kuréel gi ñu ngir gën a xamee ak moom parce que bu njëkkaan dañuy dégg euh, association des imams association des oulémas yéen ngeen teg ca éthique ak citoyenneté waaw waaw <laughs> jërëjëf Alla Diassane euh, euh, dañ ñoo ngi lay nuyu di la ziyaara di di di feddal collègue bi ak euh, RFM. Mhm. di di encouragé tamit waa RFM bu baax ci seen liggéey bu rafet bi ñu nekkee ci réew mi. <clears throat> waaw collègue bi lu ko lu ko wund moo di ne li li ci cosaanam. Mhm. moo di ne réew mi tollu woon léegi kuréel gi am nañ daanaka ñeenti at. di ko waraloon mais réeróo bu amoon bu rëy bi amoon fii ci réew mi nit ñi di saagante di ci réseaux sociaux yi. Mhm. yëkkati ci ay kàddu di waxante lu ñaaw. Mhm. fekk ñu ñëpp benn lañu ñu ñëpp ay mbokk lañu. Mhm. ima imaam yi nag xam loolu ñu woote fii daje bu rëy fii ci géejawaay. ñu def ci ay ñaan. gannaaw ñu def ci ñaan defaat ci ñaan. ñu def ci nekk ci xutba yi ak yooyu yëpp mais gannaaw si loolu ñu xam ne waruñu ko yemal foofu rek. dañ ko war a def kuréel boo xam ne. day gën a yee doomu askan euh, askan wi. Mhm. ci wàllu citoyenneté. mun nañu nekk ci jumaay di waaraati sax di def conférence di waaraati. Mhm. mais ku nekk ku kuy doomu réew mi comme que réew mi ñëpp ko bokk. te kuy doomu réew mi am nga ci am nga ci taxawaay. Mhm. ne nañ def kuréel boo xam ne day ëmbale réew mi yëpp. boo xam ne ci wàllu citoyenneté ci wàllu éthique lay wax. léegi nag bi kuréel boobu taxawee alhamdulilah rabbil alamin euh, def nañ fi ay waxtaan yu bëri. nga xam ne ay ay point de presse lañu di wax ci ay thèmes. yi nga xam ne suqa réew mi. suñ suñ asan di di comme que tey euh, dama ne yow démocrate nga dem dégg na ngay woote ay universitaire tey nga gëstu daara ji. Mhm. dañuy def rappel rek li nga xam ne daar ji ñoom dañoo yàgg taxaw ci réew mi. Mhm. ñoo doomu daara yàgg nañ taxaw ci réew mi. Mhm. kenn mënu wax taxawaay ci réew mi tuddoo leen doomu daar yi. bind nañu taxaw nañu liggéey nañu. wax lañu. Mhm. donc kon si leen joxee seen wàccuwaay ci doxin réew mi ci mhm. si xalaat. Mhm. def nga lu rafet ñoo ngi koy ñoo ngi koy rafet bu baax. tamit di ndokkeel di ndokkeel euh, suñu mbokk waa Touba. nga xam ne ci kasu rajo bi li ñu jóge. ñu leen di ndokkeel bu baax. jërëjëf kilifa bu mag bi fa nekkoon boo xam ne tamit dafa liggéey réew mi. réew mi di cérébale juddam. Euh, ci ak do muy nekk seen nekk doomu daara alhamdulilah rabbil alamin loolu loolu ndam la ci ci Sénégal yëpp nekk ndam tamit ci doomu daara yi. jërëjëf te ñoo ngi bi tamit. taxawaay boo xam ne mooy di fe feeñal rek. Mm. taxawaay doomu daara ci réew mi. dëgg la loolu si la cinq lay am incha allah si mm. loolu weesoo tamit ci ëllëg sa rek. Mm. mooy mooy mooy daaka. daaka ma dina gunaas mm-hmm. waaw waaw. ñu mm-hmm. ñu bàyyi ko ci bi yëpp. waay waay ñoom faj ko foofu fa ñu. am na solo macha allah del loolu dafay wane richesse bi nekk ci Sénégal. absolument absolument mais bien sûr ci kaw ki nga oh. xamante ni xam na li mu yor mun ko oh. exploiter. Oh. j'en profite également pour annoncer li ñu dëgmal ne koor mbokk kerceen yi également. absolument euh, voilà voilà ci wàllu woowu euh, euh, le ziara général également Tivaouane njabootu Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu xam nga mooy richesse yi may wax rek léegi nag imam cat am na mooy wàllu kàddu yu tukkee ci kilifa imam Sall jëm ci jàngu bi jàngu bi ak oh. réaction oh. oh. réeroo yu ni mel yow ban ah. yëg yëg nga ci am waaw ala loolu ay ay erreur rek lay nekk hmm. xam nga juumte moo tax kilifa suy wax rek war bàyyi xel kàddu ndax safara lu mu rëy rëy rëy rëy benn benn benn benn benn bantu almet rek moo koy taal. Mhm. mooy taal nekk daay. Mhm. rakk réew rakk lépp ca fekk benn béré la woon. Mhm. moo tax kaddu nekk lu raglu. léeg-léeg nga génne benn position boo xam ne soo soo ci bàyyiwul xel rek. Euh, mën na mën na mën na yàq lu bëri. te yàq nag waru jóge koo xam ne ci nitu diine la. te diine moom rafetal. baaxal. boole loolu lañ ko xamee hmm. alhamdulilah dama loolu nag man dëgguma kàddu gi sax mais comme ni mu jógee ci réaction yi rek hmm. xam naa ne xam naa ne njuumti dafa am mais ki xaw xaw ki ko wax tamit xaw ma hmm. voilà mais njuumti la njuumti su amee nag euh, day day ko comme que euh, ñi ko ñi ko ñi ko ñëpp ñaawlu nañ ko ñëpp yëkkati nañu kàddu yi jarul jarul yaatal dañ ko yemale foofu rek ñu xam ñu xam ne ñu xam ne njuumti la mais sëñ as damay porte ci ci ci lu mel noonu mooy lu lu ñu doon yàgg wax ci ñeenti at yi mooy waxtaan bu rëy lu ñu war a sumb ci réew mi réew mi dafa war a waxtaan bokk bokkul ko waxtaan yi ñuy waxtaan ni réew mi dafa gàllankoor lu xew rek ñu tiit mhm. su dee fii ci réew mi suñ jubalee dara dañuy xam ne ah suñu réew bi dafa fragile nañ suñu moytu mbir bi dafa ñuy laal su dara xewee ci réew mi noonu la su dara xewee ci àdduna bi loolu la ñuy xalaat dañuy xalaat ñun ko kon te te li nga xam ne mooy problème bi ñun ñëpp xam nañ ko war nañ ko sumb rek ñu waxtaan ci mais ñi ko war a sumb ñoom dañoo ragal waxtaan bi. Mm-hmm. mooy mooy mooy mooy. mooy mooy ban xeetu Baal ma ban xeetu waxtaan nga bëgg yan mooy doon les termes de référence. wa xanaa yéen boo nee waxtaan yi ñu fi doon amal ba fii baaxul indi ngeen lu bees. voilà loolu moom lu bees la ñu la la ñu kii. waaw yan lan mooy nature la ngeen indi yéen ak yan mooy terme de référence yi bu ñu naree dëgmal waxtaan woowu ngeen di wootee maanaam ay genre assise. waaw li li xam nga Alaaji mu mhm. mun nga ko tuddee lu bees mais li ci bees li ci bees mooy lan mhm. mooy nit ñi nañ nañ ko nekk seen sincérité ndax mhm. waxtaan yi fi nekk yi fi amoon yëpp sincérité amu ci su seen sincérité dañuy juboo ba pare mais duñ ci def dara loolu mooy manqué sincérité parce que suñu juboon su ay mag ay kilifa def seen départ seen alal wala seen wala wala alal réew mi ba sumb ay waxtaan ba pare ba pare loolu loolu mënu fexe ba ba ñu ñu manque de sincérité. Hmm. sincérité sincérité nag neexut a garanti de xanaa moo am ay témoins kilifa yoo xam ne ñoom ñooy. <laughs> ndax fii moom waxuma la sax ay ay ndajem diine mais ndajem mbedd ak kër ak entreprise ak nit ñi lañ lay xool di la ree ca bëgguñu la. <laughs> Ah, donc sincérité yombul. waaw loolu loolu lu am la. Hmm. mais xam nga xam nga réew comme sooy woote yow da ngaa bëgg a da ngaa jiite réew mi wala da bëgg jiite réew mi. wala da ngaa hmm. doxal ren ci réew mi. Hmm. réew mi da nga ko da nga war a jox la dafa war a dëggu ci yow da nga ko war a war jox àqam. su loolu rek yow àq bi day day dellu ci sa kaw yow yaa yow yaa leen amal àq. te loo loolu loolu nag daf cee daf cee bëri. dëgg loolu loolu di cee bëri. xam nga tey loolu ñenn ñoo ko moom leader politique yi. waa li parce que ñooy jiite lépp. Mm-hmm. kilifa diine ñoom ñoo leen jiite. Mm-hmm. ñi fi nekk ñoom ñoo leen jiite kat parce que ñoom ñooy décidé gis nga wàññi nañ ceeb bi nee nañ mm-hmm. ne mooy doxal mu ëmbale réew mi yëpp. réew mi yëpp seen njaboot lañu. dafay laaj loo xam ne ay ay question fondamentale ñu am ci yoo xam ne dañ ki juboo ba nga xam ne loolu ay ay kenn yu dëgër lay doon. yu téye réew mi la nga xam ne kenn du ko yëngal. yooyu dañu ko bàyyi mu sàmm mu aaru. kooku su dina xalaat dina xalaat comme ne ma ko waxee woon justice bi. Hmm. dina xalaat si droit politique bi. Hmm. ala ci affaire politique bi laa bëgg a taxaw. Hmm. parce que politique bi parti boo gis moomeelu nit la. est-ce que loolu loolu loolu sincère la. te warul demee noonu. waa parti moo mel ni ne ba pare nga bëgg nag laaj ci réew mi. loolu moom soo ko laaj ci réew si la joxe moo tax moo tax nga nga ne yaa moom réew mi. parce que parti bi yow ba bàyyil xel parti parti bu mënta depuis politique ba tey ji. njiit bu fi mënta jiit ñu ñu topp ci moom suñu amee la ñu bëgg rek ñoom la njëkk ñoom la njëkk war dal mhm. parce que bëggatul bëggatul bëggatul ci parti ci ci ci ci am am bi mhm. loolu nag loolu problème la démocratie ci biir parti yi moo moo gàllankoor réew mi moo indi réew mi tolof tolof yi mhm. foog parti yi ñàkk bañ a nekk moomelu benn nit mu nekk moo moomelu réew mi mais mais mais loolu ngay wax principe yooyu nga bëggal politique gi euh, moom lañu war a bëggal ba ci suñu diine ji te parce que euh, xaw ma nag ndax la wala handicap la par exemple boo jëlee xayma bi ne xëy naa tukkee ci imam Oumar Diène. 22 22 194 mosquées juma ci réew mi oh. ah 650 grandes mosquées 22 grandes familles religieuses euh, oh. et cetera yow yow loolu ndam la ci diine ji wala. Euh, wuute la wuute la goo xam ni mun na am euh, réeroo yu muy jur. loolu yàqul dara loolu yàqul dara. très bien comme yàqul dara nees man a def ba fédéré wute googu yëpp ak mbooloo moom yëpp fédéré ko mooy am dara lu ko lu ko nas. waaw xam nga lu xam nga xam nga lu yàq yëpp da koy xool fi mu yàq ci ci reen yi. Mhm. ala jaasan parce que euh, dafa loolu dafa am solo dafa am solo da nga soo gisee réew mi la ci ba nga xam ne justice bi mën a def liggéeyam. Mhm. diina bi du mën a dox. Mhm. lépp la la la dafa am ñi dañu am ji dañoo am ay ay ay ay nit ñi nga xam ne dañuy jiite réew mi. réew mi foofu foofu su baaxul dara dara dara dara mënul baax. comme que ah, dañoo bëgg def ay kuréel ñuy jiite réew mi république la ñu amee. république bi dafa ëmbale lépp. Mm-hmm. mais république boobu la ñu war a dëgëral. Mm-hmm. lépp loo moom la ñu war a sàmm ñoo nation bi moom la ñu war a moom moo war a féete kaw lépp. Mm-hmm. ñu ñu bëri def pàccoo ku nekk euh, laaj loo ku nekk lu muy laaj ci réew mi ëpp na ëpp na dayoom. tudd nga fi mbiru diine yi. mais ñoo ñoo ñoo ñu seen bopp. dafa am dañ lañ encadré duñu leen bàyyi rek lépp loo xam ne lu ñëw rek day booy rek dem mm-hmm. lépp mm-hmm. encadrement la laaj lépp ay règlement la laaj ay lépp lu dëgg lépp lu bëgg dëgg génn dayoo lu bëgg jëgg dayoo mm-hmm. ñu ñu xamal ko lii moo ngi jëgg dayoo nañ nañ ko yemale fii ndax loolu loolu mooy tax la réew mi am tànk mun doxee du yomb nag mais il faudra ñu anticiper surtout que àddina toujours mu wan ñu ne jóg jot na booloo jot na xam nga ñu doon wax wàllu corona ndekete ah, lu raw corona ngi ci ginnaaw et cetera ci na leneen a ngi ñëw gis gis loolu loolu yëpp gis nga tey eh, problème bi xew Ukraine. ñoom hmm. pays yi nekk ñu nekk ñu mel ni ñun ñëpp ñoo ngi tiit ñoo ngi xam xamuñu fa fa la mbir bi féete. Hmm. mais si doon réew mu dëgg ba nga xam ne moo amee moo amee boppam dundam. Hmm. moo amee boppam lépp loo xam loolu la lu koy maye mooy consensus. ala jàpp ndax bu ñu nekk xëccoo rek su dee xeex rek. askan wi yàgg naa xeex. léegi yàggu nag ngeen fii Sera bi la le 11 février. dëgg la 93. Euh, le 16 février. ñëpp ñëpp ay ay policiers ci rey ak lépp lañ ci rey weeru mars daaw gii rek quatorze morts yaa ba tey ba tey lijjanti wuñu ko xam nga pour te dire que ni c'est toujours les choses qui se répètent rek yoo xam ne regrettable d'ailleurs absolument mhm. mais si côté suñ côté di rayante wala di xiital mbokk yi di di rayante mhm. te te dara du baax te dara te ku ñëw ku ñëw ku ñëw réew réew bu mel ni lay la jox mhm. doxalin bi da nga mën a doxal léegi nag li lu jubanti réew mi dañuy fàtte seen bopp ñoom ci ci bu ñu xalaat rek ay élection élection yi moo ngi du ku nekk di xool positionnement tey feccoo nañuy mairie am nañu am nañu ñu ñëw am na bees ñu ñëw am nañu ñëwaat. Hmm. mais lépp lépp int la nekk rek intérêt intérêt réew mi. mais imaam nga baal ma xam naa fa la ñuy jeexale waaye j'ai l'impression que yéen tam da ngeen ko bàyyi politiciens yi trop xam nga réew mi comme ñun ñëpp ñoo ko bokk waxuma ngeen politique yi de. waaye di hmm. taxaw booloo bennoo am doole joo xam ni ñoom dootuñ leen yamale rek ci bu ñu waree ngénte wala bu xew-xew diine amee rek ñu ñëw ci yéen. <laughs> moo moo moo may pousse ma ma ma ma ma may appel. Hmm. sur cadre unitaire. cadre islamique ñee nee nañu dañoo bëgg ëmbal ñëpp nañu gën a yaatal nañu gën a yaatal ñëpp ñu ñu ñu ñu ñu bokk ci seen seen seen taxawaay bañ yem rek see demee ba politique yi réeré rek ñu taxaw non non non loolu loolu loolu loolu day xeeb day loolu loolu du taxawaay lii lii ñuy wax ni dañ ko war ñoom ñu sum ko ànd nag société civile Sénégal bi yëpp ñu def ndax nekku si imaam yi rek non non ñëpp lañu organisation gi nga nekk nekk ci réew mi yëpp te am taxawaay ci réew mi yëpp la ñu war a boole mhm. ñu xool ñu tax ñu obli ñu obligé ñu obligé si euh, politique yi ñu tege ci raay bi mhm. si dee waxtaan parti limite parti politique démocratie ci biir parti politique yi yooyu su amul dara du mënul baax parce que ñoom ku nekk ku nekk maire mhm. ne ku parti yëpp tey damal yaakaar ni parti dina egg junni parce que parti parti bu ne um, um, jur na lu ëpp téeméer parti ku mer rek taxaw sa parti ku ne la man damay taxaw sama yëfu bopp <laughs> sama yëfu bopp GIE nga koy def wala. leneen ngay def. nga ba politique bi si lay tax jiitee nit ñi bu mu nekk sa yëfu bopp la nekk yëfu askan yi askan yi nag ñoo war a tegal ay règlement ba nga mm. xam ne parti politique dañ koy limité mm. politique nekk am démocratie interne ku nekk sax ku nekk candidat sax nga am nga benn mm. nekk nguur mandat wax soo nekk secrétaire de parti nekk pendant trente ans bañ fa màggetee <laughs> waaw loolu moo yàq réew ñoom ñoo lépp lu xew ci ci wàllu yàqu ñoom ñooy mm-hmm. responsabilité ñoom classe politique bi. dëgg ñoom ñoo ñoom ñoo ci jiite. léegi ñi ci des nag ñi ñi ñi ci des ñoo war a am ful ak fayda. Mm-hmm. ñu taxaw xam ñu xam ne ñu ñi mbir bi ñu ñëpp bokk. ñun en tout cas ci taxawaay boobu la taxaw ñu ne ñu union de ulama pour éthique la citoyenneté. pour yee askan wi ak tamit tàllal suñu raxu. Mm-hmm. ñu nga xam ne ay organisation yëpp bu ñu bu ñu yem bu ñu na bu ñu yem rek. ci ne dañuy xeex. benn mbir. Hmm. non non non nañu jubbante réew mi suñu jubante réew mi góor jigéen dina fi jóge. Hmm. clan ci suñu jubante réew mi ñuy jël gaal yi ba a bàyyi ba mal bi ne puqet génn nga. soog caa parce que li indi hmm. ñu ñi ñàkk jom ne seen liggéey moo moo doxul. Mhm. yooyu nag xalaat yooyu yu koy war a kii. Mhm. te ñu ñu gëm nañu ñu jiite réew mi nekk ñu ñu bëgguñu réew mi. Mhm. mais réew mi dafa am na muy taxawee su taxawee soo bëggee liggéey réew mi sax doo am foo foo xam dooy tàmbale. fi ñu war a tàmbalee nag mooy ñun ñëpp ñu wàccee suñu bopp. ñu ñu wa ñu wàññi ñu wàññi ambition yi. ñu waxtaan suñu waxtaan suñu biir. ñu xool ñu xool li nga xam ne mu gën a dëgër. li gën a dëgëral réew mi. justice réew mi ñu jubanti ko. politique réew mi ñu jubanti ko économique réew mi ñu jubanti ko. suñu jubantee loolu góor góor jigéen dina fi jóge. incha allah sax dina fi jóge. kii euh, euh, Barça Barça dina fi jóge. Mhm. crise yu bëri dina fi jóge li nga xam ne ku def lu bon nag booba mhm. tey bon problème lañ gën a am problème kaso yi lañ gën a am. Mhm. tey soo da ngay yokk ay ay kaso dañuy nekk waa a yi xadd kaso yi xadd kaso yi am nag budget lañu am dafa am lu budget bi réew bu am ba nga xam ne dafa am lu mu attan dafa am lu mu mm-hmm. ñu koy may nag doole bi ñuy may nag dañuy jubóo du nekk rek ku nekk ministre rek euh, ku ñu doon fay cinquante millions mm. euh, dix millions sax par mois mm. ah, at at at bi mun a war a am nekk fi benn at rek bëgg am ay château mm. dafa ëpp ci réew mi <laughs> jubant boobu nag moo war a jàppal merci beaucoup Ka <laughs> <laughs> jërëjëf ma ma maa ngi yaakaar nag di xaar suma invitation ci ci ci ci RFM émission yooyu yaatal mbir wi incha allahu taala incha allah imam jërëjëf ka en tout cas ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant ka jërëjëf imam Mouhamadou Lamine Ka président bu union ulema euh, pour l'éthique et la citoyenneté ñu koy gërëm bu baax di ko sant ni mu ko waxee réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ci wàllu xalaat xeltu ngir mu jëm kanam euh, voilà donc ca nag Sénégal moom macha allah ci secteur boo laal rek suñu borom baaxee nañu fa ay euh, nit ñu valeureux moo tax li may faral di wax ce serait du gâchis que réew mi waxatuma sax wax émergence waaye ñu mujjee ci xeexoo <laughs> li fi ne ci xam-xam nañ ko jéem a fédéré nas ko euh, doon benn ca ni ko imaam waxee ñu suñu jëmm yi ñu teg ko ci suuf waaw nit ñi bëgg nañu daraja ku ci ne teg nga sa bopp foo yeggul ca nit nit rek nga mën a doon mënoo ko weesu ku ne fàtte sa bopp ñu jiital l'intérêt général 9 euh, ci RFM. àndandoo yi ndax ëllëg dafay ñëw ni set seetlu li ngay waxoo ni set setoo set set set set set set man seetlu naa la 88 628 14 14 asalaamaaleykum allo <laughs> kooku teewlu gi des na Ablaye asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah Oumar. El maa ngi lay ziar di la nuyu di la ñaanal yàlla. amiin ñu bokk lépp. di rafet lu vraiment sa taxawaay si kaw askan wi saay su ne. Euh, di profito di nuyu sama benn papa imam fii fële si Sicap Mbao vraiment ku la déglu la ku la mm. sopp la imam la mooy imam Papa Seydi. jërëjëf ñu ngi koy ziar bu baax mooy élément des ressortissants du Fuladu. macha la région du Cap-Vert. ñu ngi koy ziar baax Seydi chaque année day organiser ay gàmmu am. Mhm. mu ngi lay ñaanal yàlla saa su ne nee na keroog daf maa mu ne ma Omar bis ba dugg de si rajo bi ne Alaji Assane vraiment ñun euh, waa Kër Daara ci lañu bokk. te mhm. tey wax dëgg la andi nga benn imam boo xam ne. Mhm. loolu rek muy waxtaanam. dëgg la ñun yëpp ñu ngi lay kontaan si yow vraiment. al imam Meta Mbaalo ñoom yëpp ñu ngi lay jaar baax ba kontaan nañ si yow daal si gàttal. yàlla yàlla ngi ziar vraiment jikkoy daal Alaji Assane comme ni nga ko waxee daal jikkoy daal réew mi ñu yëpp ñoo ko war a booloo doon benn dënk defar ko. Hmm. puisque du policier bi wala du gendarme wala du douanier bi moo dugg kër yo kër di yar nit ñi borom kër ku ne am na part de responsabilité. Hmm. borom kër ku ne laa la wax. Hmm. maître bi école bi am na part de responsabilité njiiti réew mi am na part de responsabilité justice am na part de responsabilité donc ñun yëpp ñun nen kese la. loolu yëpp euh, vraiment yow mi journaliste bi Alaaji Assane comme li ngay def journaliste yëpp mel comme meloon comme yow laa la wax wax dëggal xaw ma nag ñi dul déglu ku déglu RFM. déglu kaddu askan yi wala déglu beneen waay bi ko toog mooy Fama mbay ku mën a doon laala mooy Barthélémy hmm. xam na carrément rajo bi mu ngi def wa wàccuwaayam hmm, hmm, vraiment Alaji Assane nañu booluñ doon benn defar réew mi di di jaar ñëpp di baalu ak ñëpp jërëjëf waay Moussa Bal yàlla Moussa amin amin yaa rabbi jërëjëf Oumar Sow ñu koy gërëm bu baax asalaamaaleykum maaleykum salaam <laughs> kooku di Alaaji Alaaji Assane Gueye <laughs> Alaaji Malick maa ngi lay ziar maa ngi lay delloo siyaare. aji Malick xanaa tiituloo ci guerre baak yooyu wala nag yi jógewul Ukraine <laughs> ah yow sa nuyoo bi neex na yaa ngi baaral noonu. non tey tey yow rek laa bëgg attaqué Assane sonal nga politiciens yi. <laughs> politiciens Assane yow politiciens yi ñooy wax ba Juba ñëw. non lan ñooy wax eh? ñooy wax ba Tali ñëw. ñooy wax ba Koura ñëw. waaw ñooy wax ba ndox ñëw. waaw hmm. ah, Assane yow sonal ñun ñun ñun ñun ñooy fay lempo ba ngeen dem wuti Tali. <laughs> <laughs> da ngeen ko dangeen ko génne seen poos su ñun suñuy impôt la. vraiment Assane. maa seen spécial. jërëjëf Ka wax Ablaye Diouf vraiment ngir nekk nit bu baax. <laughs> jërëjëf te vraiment yàlla leen yàlla taxaw. amiin ñu bokk lépp waay so liggéey nag Assane li ngay def gis nañ ko ci si coronavirus bii nga jël rajo bii. Mm. tous les personnels FM. Mm. vraiment jërëjëf loolu rek ma taxoon may dugg di la félicité mais kontaan nañ alaaji merci beaucoup vraiment jërëjëf li ma waxoon waa ji keroog rajo moom loolu lay jëriñ <laughs> eh, bu fekkee di nag euh, pour wut tour la ak moom gars yi mun nañu dem léegi internet bi sax ubbeeku na pour ñëpp 88 628 14 14 asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. papa maa ngi leen di bu baax. <laughs> ñu ngi bay baax. di. monsieur Thiel xam nii ma ma la vraiment di ñaan yàlla Sénégal yàlla dool ci sutura bi. amiin yaa rabbi. ñu jàmm. amiin waay. di ñaan sama mbokk catholique yi. Mm-hmm. nañu baal suñu sëriñ bi Assane mm-hmm. waaw man mm-hmm. maa la ñaan loolu lañ koy baal te yàlla tax. dëgg la incha xam naa juumati la. dëgg la dëgg la. vraiment ñoo bokk Sénégal et le soññale nañ ko. maa la baax la bu baax la dëgg la dëgg la. di wax bon sens safety protocole monsieur mhm. Ndiaye. di ko ñaanal liggéey bu rafet. amiin yaa rabi. ku baax ku bëgg Sénégal la. Mhm. lu ñu mën a wax rek Sénégal papa ñu ñoo ko bokk. dëgg la vraiment e, homme politique yi nañu bàyyi xel nañu jox. cër diine yi lislaam nañ ko jox teel. Mhm. surtout surtout surtout. Mhm. tey lépp lu xew rek il faut lislaam taxaw. Mhm. nit bu dee gaañu nag te leer na ma du bon ñëw leen di à dire ñoo koy julli. ay xaseer yi leer nañ. nañ koy julli vraiment nañu bàyyi xel ci loolu. am na solo. surtout suñu nit yi waa Kolda. ñoom professeur Moussa Bane au passage maa ngi koy nuyu bu baax nit ku baax la. Mhm. nañu gën a dooleel l'islam bi si Fuladu. xam naa muñ ko def nag mais maa ngi ko ñaan encore. Mhm. na ko parce que man kooku man man Moussa Bane la mooy sama ministre. ok <laughs> jërëjëf Ousseynou Fall ñu koy gërëm ak waa Kolda yëpp def na appel bu am solo ci wàllu baale gi euh, xajonte euh, jëllale surtout képp kuy rafetal nga wax ca waaye ku ciy wax luy euh, yokk moom matu ko nag de toute façon Sénégal moom fa mu ne woon du fa jóge incha allah ci démb bërki démb tey ak ëllëg yëpp xajonte bennoo gi ndax moonu jikk 88 628 14 14. waaleykum salaam. Alaaji Asan kooku Jóob Njaay Ibra Njaay Pikine ginnaaw raay bisimilah ñu ngi lay nuyu la sant la gërëm jërëjëf ci tey li nga ubbee tey yi waxtaan mhm. jikko yi defar jikko yi lu war la boo amee lu war la boo amul lu war la ndax jubadi moo taxoon yàlla wàcce si Muhammad sallallahu alayhi pour mu jubbat ci jikko yi defar jikko yi kon jubadi yàgg na ci àdduna mhm. waaye kuy wëlbati nit ñi nag moo bëgg a rak ku mel noonu ne moom Abdou baax yàlla na ko yàlla sa borom bi yokk ay leer. amiin am na baat boo xam ne bii maanaam yaa ma gën a dégg wolof de waaye dafa rak déggatoo ko. mu hmm. tuuke waay baat boobu déggatuñ ko. Hmm. tey la yàqu gën a bari te bu njëkk fu ay gone fooy waay. mooy wax nga lu war a def ko. Hmm. tey nag la yàqu gën a bari waaye baat boobu maanaam kuy xaj ji nit ñi daal moo rak ci réew loolu nag mooy mooy suñ problème. dëgg la te itam waarata gi bari na waaye nit ñi dañ koy dégg ci ñoom bi mu jàll ca Badiane ndax waarata gi li ci ëpp dañ ci boole folklore goo xam ne bokku ci. Mhm. lislaam mhm. du lu ñuy moderniser. lislaam kenn du ko soppi maa nga di ko sensé. dëgg la ba ci dugalee modernisation wala yàqu-yàqu am. Mhm. yàlla na yàlla dimbali ko dégg topp jërë ngeen jëf. Ndiaye jërëjëf jërëjëf asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Laaji Assane. waaw kooku. ñu lay ziare Ousmane Ka la Medina Baram bisimilah. di la nuyu di la ziar bu baax. <laughs> jërëjëf. di la di ñot di la jot li nuyoo Cheikh Ka Sangalkam. <laughs> Cheikh Ka maa ngi koy baax. seen auditeur la gu leen it bàyyi xel. <laughs> toujours encore ziar moo ko waa Sangalkam yëpp. ok euh, Assane. waaw. man maa ngi àddu si wàllu dund bi. Mm-hmm. Assane damaa barki démb euh, dañoo génn si télé bi ñu ne wàññi nañ dund gi. waaye ba léegi moom feeñagul ndaxte bitig liñ doon jaaye la ñuy jaayee ba léegi. Hmm. foofu ci yéen. waaw. Medina euh, fan la nekk ban ban région. ci Jolof la Jolof. ci département bu Linguère commune bu Afé Jolof. gaa yi ñoo wàññeegul quoi xam naa naan ay. transport beeg kilo suukar la jël ba léegi kilo suukar ñu ko jaay sept cent franc. ak naan sama stock stock jeexagul ak yooyu wàññi nañ ko ceeb bi wàññi doon jël lay jar ba léegi. léegi am na foofu service su euh, ministère du commerce wala bànqaas bu lañ jege. amul foofu benn service ministère commerce wala lu koy nuru wala kilifa yi diwaan nga maire ba gendre gendarmerie ngeen dem boole ñooñu ba xam déglu leen. ah xanaa loolu moo ci def de waaye nag dama yaakaaroon ne. xam nga nag Seydina Ousmane ñun tam dana toog rek di jàmbat solo sa daal rek nga dem. xaw ma ku jiite brigade gendarmerie ba foofu wala préfet lu mu mën a doon kilifa nga boole ñooñu. d' accord d' naa ci nga wax waaye man li may xaw a jaaxal tuuti Assane ñoom bu bu yokk amee kenn du xaar ba li ñuy ji stock bi ñu jënd mu jeex <laughs> pour ñu pour ñu yokk ko. <laughs> dëgg la de. <laughs> waaye loolu tax na bu bu wàññi amee ni il faut li ñu jënd mu jeex ah. soog wàññi. loo ci man ci sekkee na ngeen loo ci man jërëjëf Ousmane. jërëjëf Ousmane du yomb de Ablaye moom vraiment asalaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah. kay Guèye. ñu ngi lay ziar baax. waaw nag wax dëgg yàlla ma ne bëgg naa. Mm-hmm. ma ne bëgg naa daal nga may ma ma wax ci ñaari tomb. <laughs> waaw nga baal ma rek suñu réew mi xam nga ñun ñëpp ko bokk. nga di ci béy sa waar. ñun tam ñuy jéem di béy suñu waar. Mm-hmm. léegi macha allahu taala. Mm-hmm. am koo xam ne moom la yàlla dénk réew mi. Mhm. te nit na ñoo ne am ko yàlla dénk réew mi di président Macky Sall bëgg jàmm. Mhm. may woo nag suñu kilifa diine yi ma di leen woowaat. Mhm. il faut ñu jàppale ko parce que damaa dégg kenn nit. mu ne par exemple li li ñu def def woote yi maanaa gaawantu affaire projet góor jigéen ñi dañoo bëggoon woon suñu kilifa diine yi ne du ñu dara ci réew mi. te loolu du wax ju wër Macky mais mais est-ce que sujet yi jar na mettre en relief également au soleil euh, oustaz yow tamit. Ah, xam ma ah, yooyu eh. xam nga souvent vous avez tendance di répéter yoo xam ne yàqkat yi ñoo koy wax loolu euh, waxuma yow de ñi ñi koy wax bu leen bul jàllale yooyu yow ñëwal sa contribution ak luy defar réew mi man foofu laa gën a bëggee samay waxtaan ci pencoo gi mais pas pour. waa mais loolu nga ubbee dafa dafa dafa rëy quand même. Ah. ba ma xam nga yow borom xam-xam nga yaa ngi yëngu ci daara nee nga. léegi léegi ñëwal ak argument ak loo xam ni. day contribuer ci luy gën a. yëkkati réew mi. waaw kay bàyyi luy yëkk gën a yëkkati réew mi kay première mooy président bi ci boppam dafa jëloon ay engagement ne nañ ko jox réew mi day liggéey réew mi. Mm-hmm. mu dégg nga de. waaw mu baax nag jël nañ réew mi yëpp jox ko ko. Mm. ñëpp ñëpp bokk réew mi. général war a jiite xeex lépp luy ñàkk. Hmm. xeex lépp luy insécurité xeex lépp luy masala ñàkk wërgu yaram. Hmm. lépp daal moom xamal na boppam dem na ba suñu dëkk dem na ci kaw gi moo tax ma ne Macky bu liggéeyu réew mi man Souleymane lii duma ko ko baal ndax xam na luy coono xam na réew mi dem na fu ne. mais nag force ñu liggéey ñu dimbale ko parce que nag benn jëmm la. Hmm. bi mu ñëwee gis nga mu jox ko kilifa diine yépp bëgg leen fonk leen teg leen ci kaw. ñun daara yi nag ñu loru ñu loru ñu loru ci régime am lañ gën a loru mhm. donte nag tarkul isaati ihsaanun bàyyi na la mu doon def ab ONG yi jógaat nag bëgg a dalaat ci kaw daara yi mhm. te ñun ñun am nañ solution boo xamante ne bi daara yi mën nañoo liggéey Sénégal ñu mhm. doon yaakaaru Sénégal mhm. ba ci gind gii nga gis tey euh, centre yi mhm. nañu ko jox nga gis man mën naa ko liggéey bu bëggee liggéey ci daara yi da ci am conseil ay conseiller gis nga Mouhamed Diouf mi ngi fii ci Mbour Lamine Fall mi nga fële ci kaw Kaolack wallahi te bu ñu defalee université. Mm. te xam nga nee na day caral suñu kilifa diine yi ku leen saaga bu leen kenn def dara nangam. Mm. te am yoo xamante ne maa ko njëkk a wax fii ci Sénégal ci émission. Mm. muy université daara yi dañ ko war a am. Mm-hmm. am na ñu ciy giiroo nag ba am na université boo xam ne bi autorisé nañ ko dégg naa ko. te kuy xeex l'islam di xeex suñu mag ñi. di xeex lu baax ñëw di saaga suñu mag yi jarte autorisé dara ñu jox université jox ñu ministère. voilà jërëjëf. 88 628 14 14 rajo Futur Média waaleykum salaam. Guèye Guèye Guèye Ndiol ba si bañ. ok maa ngi lay ziar soxna yàlla yàlla na ko ziar. maa ngi lay bëgg bu a baax jërëjëf waay jërëjëf. yàlla na yàlla suturaal ñu bokk lépp soxna journaliste de loolu la rek la. ndax fii si Ndar Guèye sama nijaay Alioune Badara Diagne Golbert. Mm. nee na lépp lay wax. Mm. na nekk lu lu lu ñu baaraam. Mm. na nga wax lu wóor. yow fi nga tegu macha allah macha allah. ok na ñu wax li ñuy jëriñ. Mm-hmm. dañuy wax nañu jëme kanam mm-hmm. nañu ne wax luy baaxal réew mi ñun ñëpp mm-hmm. nañu booloo ni ñu boola woon ba gagné coupe d'Afrique bépp bis buñ ko boolewee te xol ni jàppal booloo lépp lu ñu wuti danoonu ko am incha allah lii moom moom moom loolu lii li nga nekk nii nañu soxla journal bu ñëpp defoon na yow macha allah Guèye. merci beaucoup yi xam ne ñu wax jërëjëf. jërëjëf merci merci baal ma waaw euh, waxtu bi moo ñu dab ak les les euh, communiqués la publicité euh, les annonces ci gàttal ñu ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di gërëm Abdoulaye Diop mi nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi réalisation soxna Fama Dione ñu yendu ak jàmm.